jës moom mooy xolu saafi te aussi programme la boo xamante ne dañ ko war a dañ ko war a tasaare maanaam comme ni ñu ko defee ni ñi xam te ne xamuñu ko woon bi mu ko xam donc loolu moom mooy suñu mission de passage programme bi bi mu ñëwee jaare ko ci biir tout Camara mu nekk ministère de la culture envoyé ma document bi ma ne dinaa leen saisir Saliou Diouf comme ça ñu balancé ko monsieur le maire Mamadou Dione noonu la ñu ko ko balancé mu kontaan ci trop ñëw réunion nañoo ak moom plusieurs fois ci donc bu amee aboutissement ni loolu bettuñu melokaana moom la fi wone parce que aussi Safène pour nga jàppale ko foog nga bëgg ko d'abord te Safène pour nga jàppale ko aussi li nga koy jàppale ci moom il faut il faut il faut mu nekk loo xamante ne réalité la moom mënuñu yoon artiste la ñun xam nga ñun artiste la moom écrivain la moo tax projet bi amul benn problème bu ñu étaler ko ci biir mbooloom loolu vraiment ñoo ko ci ñoo ko ci ñaanal bu baax a baax a baax biennale dafa baax parce que nit ko aussi cosaanam pour nga mun ko ràññee maanaam ñu expliquer nga comprendre bu ñu ko jaaree ci bagage yi da koy gaaw comprendre parce que bu la waxee ne sa maam yi nii lañ daan solo solo takk jaxa ak yooyu doo comprendre mais suma ma ko dessiné defal ay caxaan yi ak téere ni nga xam ni la lolu moy sensu biennal bi parce que bo seetlee ci cérémonie ni wor nañu def tour chaque œuvre ñu expliquer la lan la ak lan moko tax a jóg donc lolu aussi def nañu bo ñi xamuñu won xam nañu ñi gisuñu won gis nañu té deug deug nag projet bi du projet tay ni ñu ko nasee ñi nak en groupe aussi dañuy ñaan yalla tout temps ñu koy def ba ca taxaw joge jas ren dem sa wutaan dem dem campement ngee ñoo ñëpp fas nañu ñaan yàlla ñu bañ a taxaw ñu étalé ko ba saaf yi yëpp ci seen bopp li xamante ne moom la ñu manqué loon ci seen cosaan ñu jëm ci def le maximum avec le monsieur le maire ñu delloo ko foofu waaye aussi am na ay joolaa yoo xam te ne bokk ñu ngi liggéey bi te boo waxee séeréer saa fay da ngay wax joolaa nee nañu àggin ak jëmbo loolu dëgg la donc mënuñu wax te duñu leen wax ñoom Seydou Koli ñu nekk ñu baax ak may mën mu ngi na leen ñoom ñooy commissaire à l'expo ñun du ñu jaay ñoom ñoo nekk ci œuvre yi loolu mooy seen cër. bépp dëkk boo gis mu développé si monde bi culture moom moo ko moom moo ko développé quoi ndax boo waxee culture rek nga wax cosaanu dëkk bi donc nee nañ ci ay jamono par rapport ak dëkk bi ni mu ibbeekoo ay rapport ak yeneen entreprise bi nekk donc ñeneen ñi ñu ngi jaay seen i donc bu yàggee Sénégal lay mel ni Dakar. donc day dem ba li nga xamante ne moom mooy suñu culture mën na nax saay ni nee nañ sax fii ay siècle séeréer bi donc mën na dem ba kenn dootu ko làkkati donc lu mel nii nag moom mooy tax ba séeréer boobu noonu di exister donc peut-être tamit bu ñu amul loolu ku mel ni maire bi nga xamante ne donc comprendre na am na vision donc lu mel nii di ko di ko accepter ndax suñu maire boobu noonu bu dara ni ñu amee don ci art bi ñu def moom noonu la ko amee ndax moom écrivain la artiste la.

mais lii day wane ne béy ci say mu tànk démb rek bërgi démb Feera bi mu ngi mu ngi grand théâtre troisième édition bi ñu ko doon suivre en direct nga gis sénégalais yi ak euh, au niveau national dañuy gis Mamadou Mamadou Ndiol suñu maire donc lu gën a kawee sax na ñuy taxawoo président mais dañuy daw ci gannaawam donc dañuy gis ñun. saafi dafa mel na ñun doom bu ñu am bu ñu yàlla jagleel muy xéewal ñun xamuñu ko ko dafa nekk doom bi nga xamante ne euh, peut-être suñu maam yi ñoo ko liggéey démb ak bër gi démb ñu war ñu ko fay tey donc du ma baras du ma du ma sax faral wax si nit du ma sax genre boobu comprendre nga mais dafa nekk maire bi nga xamante ne maanaam bu ñëwoon tey mu ne démissionné na bëggutul nekk maire tey fu ñu jëm donc dafa nekk profil bi nga xamante ne. nekkul ñun lay nekkul boppam lay liggéey mais ñun lay nekk di liggéey kon nañu nañu nañu nañu nañu tàppe xol yi ñu yenente ñu yenente jàmm ñu bokk ndey bokk baay xam ne kat dëkk bi ñun ñoo ko keneen du jóge feneen ñëw duñu defaral dëkk bi mais bu dee da nga am maire bi nga xamante ne dafa wàccee boppam xeebul sa xale bu ndaw xale yi dañuy daw sax di toog ci gannaaw maire boobu noonu da koy am ñëpp am yéene si moom yow nga war ko jàppale yow ngay nekk di di fakastal wala ngay nekk di xeex sa bopp ngay xeex donc nañu tàppee nañu tàppee xol yi. donc biennale bi nag dafa am ay normes yi nga xamante ne ci lañ ko war a exposé des fois da ngay euh, waroon nañu mën a yaatal non biennale bi mooy quatorzième année au niveau national dafa am mais dafa am ay normes cinq personnes ñoom am droit cinq personnes ñoo am droit ñu exposé ci li nga xamante ne moom mooy biennale bii nii melul benn foire bi nga xamante ne ngay ñëw da ngay exposé. même bu ñoon am na ay GIE yu bëri yi nga xamante ne ëpp nañu saa yi nga xamante ne wutal na leen ay kayit ñooñu gisoo leen ñu exposé fii nii kon lépp loo gis dafa am ay noon dinañ xamal que ne donc képp ki nga xamante ne bëgg na daal mooy daal yi nga xamante ne waa Ngaye dañ koy defar man loolu laa jàng daal talon daal sabot daal capp ceinture donc métier boobu noonu moom laa nekk di jàng jaratul ngeen di jënd daal ay Ngaye wala ay Médina képp ki nga xamante ne soxla bëgg na daal daal boo di soxla couleur di doon dàll bu dul dàllu jinne ba ma ko commandé man mën naa ko dama la koy defaral donc la ñu gëm suñu bopp ñu ñu consommer ñu consommer local ndax jëmm ju nekk bu jëmbalee moromam rek saafe dina avancer quoi donc amuñu lu dul saafi nañu jëmmal saafi te ñaan nañu ñu le maire lu mel nii mu bañ fee mu bañ fee mu bañ fee mu gëj fee amati quoi donc buñ doon wax ñu jeexal donc mu le maire juñoon naa la ko keroog néew naa la am na ñuy jógee Casamance ñu ngi exposé ci aéroport bii ñu am nañ mairie bi utal ñu benn place. ci aéroport bi ñu exposé foofu noonu bu demee ba lépp yemb jeex dafa war a am période adhésionnat monsieur le maire nga taxawuñu pour ñun ñëpp ñu utal ñu benn période adhésionnat de jeex bi nga xamante ne day nekk comme marché day nekk comme centre culturel aar yi ñu koy continuer di ko exposé foofu noonu ñu ngi lay jaajëf bu baax a baax a baax. esclave yi nekkoon Amérique ñu jëlee leen fii ci Afrique yóbbu leen foofu ndax ci am ku ma sa bind mu ne dañu gas suul ñu defe ne jeex nañu defe ne saay nañu.

ba ci rab bi xale di rab boo koy déglu day mel yaa ngi déglu musique bo xamante da nga magalé mom ci dëkk bi tay jii les plus grands artistes au monde ay noir la ñu do moy firne la muy firne né ñooñu amna lu desoon ci ñoom malgré les trois siècles de d'esclavage malgré les siècles de colonisation malgré les siècles de domination la desoon ci ñoom moy sen aada moy sen caada moy sen cosaan te loolu dafa des ci ñoom kon cosaan dafa am solo particulièrement ci commune Diass lii ñu jot a def damay remercier la commission culturelle bi nga xamante ne Alioune bi moo ko jiite wax na ko sànq ñun ba ñu faloo la ñu fàtte parti la ñu fa fàtte par parlo li tax ñu dénk ko parce que moom daf ciy yëngu Alioune ñu bëri xamuñu ko ko Koursaale parce que Alioune dafa yor métier boo demee fële ca Saly

mbay dem na sax ba taay dama ko romb fi yaram bi tàng mën a ko mbay da nga ah demal faju ji mu ma non affaire affaire affaire la après ñu la lànd bi sax di wax ne lii mooy solidarité xol yi buñ ko tojee rek li ki des day te xol mooy doomu aadama yéene mooy doomu aadama te yéene bii ñu am organiser lii dans le cadre de la muy une activité spontanée te mu am réussite bi ci war kon loolu dafa am solo sànq le ministre Abdoulaye Diop bi ma ko koy yëgal dafa ne ma su ma amee jot sax damay ñëw defal la surprise tellement il était content n'est-ce pas mais xam ngeen fi kennu acteur politique en général da ngay dellu sa base ndax il est ak yeneen ak yeneen mais rien que la présence de Soxna Bintou rek doy na sëkk pour jëmmal affaire bi pour taaral maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ne lii c'est première mais nous allons encadrer les acteurs culturels Ni def culture traditionnelle comme ni def culture moderne ndax ñaar yooyu moo Et te commission culturelle bi yéen seen commission la yéen ñu yëngu ci wàllu aar ku ci nekk ci yéen war na am numéro téléphone Aliou numéro téléphone Mbaye de téléphone, nga xamante ne rapporteur il faut un bouillonnement d'idées est yooyu qu'il di am un la de traduire en politique culturelle en nañ ndax gars yi wax nañ ko sànq ndax man je peux me réclamer comme étant un acteur culturel ndax quelqu'un qui a fait onze ouvrages je pense que bokk nga ci da nga cee tax rëpp n'est-ce pas euh, doo ramatu bu ciy rek da ci bokk sax ci rëpp tax ci rëpp donc loolu aussi baax nañu xamal ko ñëpp mooy gën a di sant ñëpp di wax ne Diass commune Diass les artistes de Diass l'histoire retiendra que bokk na ci biennale bi bokk na ci de fort belle manière Les télévisions, ils les ko relayer te day wane ne Diass commune Diass une vie culturelle très dense on a beaucoup de choses à montrer à notre pays à l'Afrique et également au monde entier